dinaa góor góorgóorlu ba juróomi minutes yin ma jox ma jéem cee yem ndaxte ku ne xam na ni gàttal yombu ma waaye nag comme ñi war a wax xaw na ñoo takku te journalistes yi dañu war a dellu seen rédaction pour def seeni montage kon faaw gàttal wax ji nag jërul guddal tey bi ñu rafetloo li Lacoste def mooy lider allier du candidat Ousmane Sonko ànd ak Yewwi Askan Wi jàpp naa ni sénégale yi rafetlu nañ ko ndaxte réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ki nga xam moom leen jiital muy président de la république en 2012 ban koy fal kenn njortul woon ni 12 ans après coono bii sénégalais yi di dund nga xam ne tey koo xool dafa sëngéem ñëpp la seen xol naqari koo xool jaaxle na ci lu nar a xew suba ñëpp tiit jaaxle ci koo xam ne ñun ñoo ko jox sunu alal muy doxal. jox ko sunu sañ-sañ muy doxal jox ko sunu kaaraange réew muy doxal jox ko sunuy loi ak réew muy doxal lépp mu mu wëlbati ko di ko dumaa askanu Sénégal kon nag tey bu demee ba askanu senegal am ab leader bu tudd Ousmane Sonko ñëpp gis ni président Macky Sall depuis 2019 mu falu li muy def mooy fexe ba Ousmane Sonko du ma a nekk candidat en 2024 kooku jaaduwul kon nag lii xew suba dañ bëgg a wax sénégalais yi ban njariñam suba bu benn sénégalais toog di tayle sañ-sañam ak moomeelam dañu bëgg sénégalais yépp génn tuuru leen ci mbeddi ndakaaru yi loolu lañ bëgg na sénégalais yi tuuru ci mbeddi ndakaaru yi na mbedd yi fees dell na ñëpp jubal ca tribunal cour de cour suprême ba nga xam ma ngay am ca corniche ba wetu hôtel teeru bi parce que foofu la mbir ma di xewe te audience ba audience publique la sénégalais yi am nañ droit dem fa kon bu leen kenn tere na nañu bàyyi sénégalais yi ñu génn seen kër yi ku war a demander permission demander permission ku war a tëj sa atelier tëj ko képp kuy élève wala ngay étudiant na ñëpp jubal cour suprême à parti de sept heures huit heures na mbedd yi fees dell ñu jëm tribunal ba parce que procès bi ku nekk am nga droit dem fekke ko liñ ciy teg rek ñun mooy bu kenn toj bu kenn taal message bi sénégalais yi war a jox seen bopp jox ko waa àdduna bi mooy ñu tuuru ci mbedd mi wane ni li président Macky Sall bëgg a def kenn d'accord ci tàlloowuñu kenn tojloowuñu kenn parce que loolu lañ ñu bëgg a pousser pour def li ñëpp di njort te kenn du ko may li ñu bëgg mooy ñu àtte ci dëgg àtte ci dëgg nag sénégalais yi ñoo ko mën a exiger ña nekk ca tribunal ba gis ne mbedd yi fees na dell loolu mooy message bu foor bi mais suñu amee ay foyer de tension ñuy xeex loolu la président Macky Sall bëgg duñ ko ko may na mbedd yi fees del ñu jubal ñu ñëpp ba tribunal ba ñu yegg ñuy ñaan force de l'ordre bu ñu tiire benn force de l'ordre bu mu tiire benn lacrymogène bu kenn jaay doole ñuy lancé nag un message au juge yi nga xam ba fanweeri at ak juróom ci ginnaaw waa juróom wu góor Ali Ba moom la Abdou Diouf bëggoon na utiliser pour mu neenal candidature Ablaye wat ginnaaw bi élection présidentielle yi 88 yi jàllee moom waajuram wu góor taxaw jël ay responsabilité am ne Abdou du ma neenal candidature Ablaye Wade parce que abla Wade am na droit nekkaat candidat parce que xeexoo moo am mais atte ci dëgg teg ko ci yoon ba président Ablaye Wade amul déchéance bu nekk ci kawam pour mu bañ a nekkaat candidat en 93 kooku ko ko defoon mooy mooy waajur wu góor bu sire Ali Ba mii nar a atte suba waajuram wu góor wu tudd Ali Siré Ba moom moo defoon loolu kon leer am na solo ñu fàttali ko pour mu taxaw fa waajuram wu góor taxawoon Sénégal ñëpp tiit ne Abdoulaye Wade dina rëtu la nekk candidat ci ay élection moom mu jël responsabilité am ne Abdou Diouf sama sama sama sama sama sama liggéey duma ko du ma du ma ko yàqate sama carrière du ma ko yàqate ndax bëgg lu neex président de la république kon Ablaye Wade duma ma ko tere nekk candidat donc li ngeen bëgg du ma leen ci fekk si yow commissaire du gouvernement boobu moom moo tey moom lañ remplacé par l' agence judiciaire de l' état la cour s' la cour de sûreté de de l' état kon nag tey yow Siré Ali la sa waajuru góor defoon en 88 fanweeri at ak juróom tey yow la Sénégal gépp di déglu jëlal say responsabilité waxal président makis Sall ak agent judiciaire de l' état li ngeen bëgg du ko nangu damay àtte ci dëgg dëggal li juge Sabassi Faye wax ca Ziguinchor ñu dello Ousmane Sonko ay fiches de parrainage am bu ñu demee le 25 février 2024 sénégalais yi àtte maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. merci. asalaamaaleykum mbokk Sénégal di nuyu ñi ni déglu ñëpp di nuyu kilifa diine yi wax ji daanaka bërki démb wax naa ci lu am solo bi may def fii point de ci li xew war a xew le 17 bi ñu jëm muy gannaaw suba mën nañ ko résumer de façon très très simple le président Macky Sall lan la jóg pour xeex nit ku am ambition am un projet projet boobu am beaucoup d'adhérents projet boobu am ñu bare ñi nga xam ni dañ ci porter seen espoir nit yàlla may ko popularité nga ni que léegi loolu duma bàyyi nga exercer ko duma bàyyi mu continuer damay fexe ba nasaxal loolu en résumé loolu rek moo fi ne ñuy fàtteel le président Macky Sall que des oppositions entre opposants et des oppositions très fortes ont toujours existé dans ce pays-là yàlla may nañu ñu fekkee 2005 entre le président Ablaye Wade et le président Idrissa Seck te pourtant président Ablaye Wade terewu ko mu bokk élection yàlla may nañu aussi ñu fekkee l'opposition entre le président Ablaye Wade et le président Macky Sall actuel président de la République te président Wade terewu ko mu bokk élection mais depuis que le président Macky Sall est là la participation à une élection moo gën a metti parcours du combattant et la problématique de la participation en réalité a commencé avec le président Macky Sall d'abord fexe ba képp ku yàlla may tuur may la doole nit ñi am yaakaar ci yow mu xool par la justice comment la lay éliminer Karim Wade est passé par là le président Karim Wade le président Khalifa Sall aujourd'hui mu ni dafa jóg pour jaaree le président Ousmane Sonko la problématique de la participation l'introduction du parrainage toujours pour fexe ba nit du bokk maintenant il a fait beaucoup d'erreurs le président Macky Sall buñ ko doon compter duñ fi jógee mais il a la possibilité de corriger tout cela demain il a la possibilité demain, s'il décide de réhabiliter le président Ousmane Sonko, nous donne candidat, présenter le président Ousmane Sonko à tous les autres candidats qui le souhaitent devant le peuple sénégalais et seul ce peuple souverain décidé. Il...